mbokk yi xarit yi ñoo ngi leen di euh, nuyu di ziar ñëpp nag di kontaan saa su ne ci ànd bi ngeen ànd ak RTS 2 rawatina nag seen émission Tam Tam en tout cas c'est pour nous toujours un plaisir de vous retrouver te ñu ngi ñaan saa su ne jàmm ci kër yi ñu ngi ñaan wér ci kër yi parce que nag wax dëgg yàlla am na ñu nga xamante ne bi ñoo ngi ñuy seetaan aussi bien dans les prisons que dans les hôpitaux du Sénégal ñooñu tamit ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax képp ku ñuy seetaan ci région yi ñoo ngi lay nuyu euh, di la ñaanal jàmm ak salaam mbokk yi émission Tam Tam mu tey bi nag euh, ni la nar a tëddee ñu ñëw ak yéen nag euh, du jour muy démonstration bu nga xamantene bi euh, suñu xarit euh, D'al dinañu ko indil bu ko ñu ah, yenn façon classique yu nga xamantene bi mën nañu ko li nga yu am ci Sénégal bu ñu joggé ci lolu mbokk yi dañuy ñëw ak tonton Lamine mi équipe tam tam ñuy indil mbokk yi xam naa ne inshallah neex lool parce que nag ay nit yu nu gëjoon a gis ah tonton dem te ne loolu rek mën ko ñu waxtaan ak di ci am lool mbokk yi euh, invité bu bi da ngeen ko gis dans quelques instants waaye nag ñu ànd ci tamit ak euh, ku tamit ci émission bi 31 décembre euh, jot nañ ko présenté muy madame Awa mi nga bi ñuy indil éducation et civisme mbokk yi xam ngeen ne mu lol cim rew bu ko defé nak euh, la mu indil bo ca kanamee danañ ko faram faccé bu baax ba muy euh, citoyenneté euh, pour un Sénégal émergent dañu né nak dëkk bu naré jëm ca kanam yaakaar né ne dañuy defaraat toogaay bi té lol nak mbokk yi dafa nek lu am solo ma dem régie dellu siwaat dañuy am mbégte nag vraiment di euh, euh, feggoo ak madame Awa Diop mi nga xamante ne bi sànq maa ngi koy wax euh, ci 31 décembre bi jot nañ leen ko présenté ne leen ah suñu xarit bi lee de moom la ñu dénk li éducation et civisme mhm. mu nekk nag wax dëgg yàlla lu nga xamante ne bi am na solo lool ci mhm. dund ñu doomu aadama mhm. ah ñu kontaan aussi ci feggoog yow parce que nag dañu fas ci saison 3 bi indi ñu nga xamante ne bi ay dañu spécialisé ci la ñuy def ñu ngi lay dalal jàmm c'est un honneur et un plaisir ñu am la ci équipe bu tam tam bienvenue Merci beaucoup Yakham, merci et c'est un plaisir aussi nous mhm. intégrer la chaîne nationale RTS 2 te ñi ngi ñaan Yalla lépp luñ fi sumbu suñu borom bi jappalé ñu ci ñu mhm. yeggali ko yéné mhm. ak xol mu yegg fu sori sori si barke Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam en tout cas contane euh, nañ parce que demb ak Cheikh Ndongo mang koy wax ma ne mm-hmm. ah, allah ci kattanu yalla saison 3 bi nañ ci am yakar parce que nak mm-hmm. ñi nga xamanteni bi ñoo naa gungé mm-hmm. ah, am nañ ci yakar lool macha allah bu yakar tas ci bir loolu mbokk yi xam ngeen né tonton Lamine ndjay da ngeen ko doon gis ci décibel salsa yaakaar na ne ci 31 décembre bi sax jot na woné bopam waye nak dafa ñew ci benen fan bi nga xamanteni bi momi tamit ci côté bobu tamit min nañ ko ci muy daal ay nit yu nga xamante ne bi daal ñu ngi fi woon di def liggéey bu rafet nekk fii toujours ci sunum réew mu fas yéene leen indi wane leen ñu fàttaliku parce que nag fàttaliku mbokk yi mm. dafa baax lool ci jamono parce que nag dafa am yu bëri yu nga xamante ne bi daan nañ ñu ko jàngal tonton mm. Lamine ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax a baax yaa xam ci plateau Tam Tam c'est un plaisir en tout cas ñu feggoog yow jërëjëf yaa xam uh-huh. xam nga tin bu naree neex suba xëy xeeñ uh-huh. olof bi

mu mhm. fajal ñu mhm. liy aajo yi ak soxla yi mhm. ci at mii nga xam ne at mu yees la ñu dugg ci ñu facilité waxtaan ak nit ñi lu am solo loo xam ne nii defe naa ni saison bi eh, dinañ ci jàngaat dëgg la ndax li ñuy nar a génne day nekk lu ñuy xalaat dëgg la xel mi faram fàcce ko xol bi root ci ah macha ko day nekk xalaat bu dëgg xel mu dëgg xol bu wér. wa nak euh, tonton lami loolu motax ñu ñu xawono tok toog parce que nak ab mbir bo ci nekké dafa mel euh, euh da ngay jema jëm ci kanam. Mhm. tok jàngaat xolaat défarat looloo tax saison 3 bi commencé ni loolu lu tubaab bi di wax ni la patience et la longueur de temps font plus que force ni courage.

merci beaucoup Yaram mhm. plaisir partagé kontaan mhm. à trop mhm. bokk ak yéen plateau bi bon rêve la woon ku mel ni tonton Lamine Ndiaye ak yow Yaram tata Awa tata bi kontaan naa trop ah, en même temps de profiter ou de souhaiter une bonne et heureuse année merci beaucoup et yàlla dafa ñu tawféex xéewal Amen.

Tata Mbayang nous ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a di la ñaanal une excellente année 2018 c'est un plaisir en tout cas pour RTS2 ah ñu wone la parce que nag euh, vraiment yaa ngi ñu doon bégal ñu ngi lay nuyu merci beaucoup d'être avec nous Assalamu alaikum, mhm. xam maa ngi lay fay mhm. di nuyu ñi si plateau bi yëpp. Mhm. ñi ma toogal kii suma turandoo la ndax man ma jigéen laa tudd ñu may wooye Mbayang. <laughs> ma jigéen yëpp Mbayang lañu. di kontaan nag. Mhm. di ñaanal émission bi RTS de tam tam. fu mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla ak yonent ba yeggal. di ñaanal seen directeur. Racine fu mu bëgg a yeggalee émission yëpp yàlla na ko fa yàlla ak yonent ba jàppale yeggale. amiin di la gërëm nag di la sant. Mhm. maa ngi souhaité nag Sénégal yëpp. àddina bi yëpp. maa ngi leen di souhaité. atum jàmm yàlla may leen gudd fan mhm. may leen wér-gu-yaram mhm. at mi yàlla nañu gënal mhm. at mi ñu génn amiin amiin yàlla na neex a neex a neex yàlla nañu yàlla may wér may ñu lépp may nag di nuyu nag sama mbokku délégué de quartier yi di leen souhaité ndax man délégué de laa ah, ah, maa ngi koy jiital di ko jox euh, di ko jox délégué quartier yëpp. waaw di leen nuyu. Mhm. di leen gërëm di leen sant ndax bu ba ko joxee yaay joor rek. mooy présidente délégué quartier yëpp. très bien ma delluwaat di jox sama secrétaire général. Mhm. muy Matar Niang. Mhm. delluwaat di nuyu sama maire. muy Cheikh Bamba Fall. d'accord fu mu bëgg a yeggal Medina yàlla na fa yeggal Medina di nuyu kër diine yépp jërëjëf ñu yokk ñu ñaan. Euh, léegi nag euh, xam naa ne studio bi nga xamante ne bi fi la ñu nekk ah xëy na am na lu mu la war a mën a fàttali parce que studio bi nag wax dëgg yàlla ah, yàgg ah. na te am na yu bëri yu nga xamante ne bi xew na fi. studio bii day. Mhm. dama dugg rek sama yaram ndaw mu fàttali ma lu baree baree bari. Mhm. ndax studio bi mhm. fi laa jàngee baa fi laa jàngee siin. waxee kulu allahu axadum. ndeysaan si bi fi laa defee lépp. ndax studio bi bi ma nga xamee ne maa ngi fii ñëw. booba temps temps wu Ablaye Diack la. Ah. temps Ablaye Diak waaw temps waaw temps Ablaye Diak mhm. laa ñëw fii fii bi ñu fii ñëw boobu Ibrahima Mbengue moo ñu fi indi mhm. man nag maa ngi commencé ba ma amee sept ans laa commencé di jouer théâtre

voile boo xam ne c'est classique xam ne dina mën dem ci mariage ani de gala xamoo woon ne nan koy defee il suffit seulement nga jël deux euh, pas deux côtés yi ba musuroo ko takk ko ni ci ginnaw pas ci biir mais ci ginnaw li ma des desit bi ba pare nga jël bi su forme nga def ko su forme de chapeau يا حبيبي محمد يا pic pour affaire bi gën a dëgër mais beneen càmm bi ngay jël bi boo defee bii da ngay fuse mais bii nii ngay jël nga jël pic bu blanc pour mu associer ak euh, blanc bi « Ya Habib, salam alayka, salawatullah alayka » Voilà, j'ai appris à en plus la appris à parler. Masha'Allah, c'est tout le temps. Bon, je vais aller à l'école pour apprendre du jour. À la prochaine. خير رسل ربي من به أبصر

préparé wuñ ko rek pour ay ijaab. ijaab <laughs> dafa ijaabee kanam gi ijaabee. macha allah macha allah benn question laa amoon nag bu muy dugal. Mhm. parce que dama gis ay góor yooyu musóoru est-ce que duñu mujjee ci ijaab. <laughs> alors ah, hmm? dina xaw a doy waar yaakaar naa ni jigéen ñi daal moo gën a rafet pour ijaab ko góor ñi tout à fait parce que góor ñi quand même permettre nañ leen ko <laughs> juste euh, aussi ñu ñëw ci li nga xamante ne bi mooy muuraay yi ak façon tissu yi nga xam ne yéen a ngi koy mm-hmm. que je vois que tissu bi nga utiliser sànq ratax na mm-hmm. waaye tamit am ngeen astuce yu nga xamante ne bi déjà laata ñu koy def dafa am lu ñuy jiital ci biir ba pare voilà laata ñu koy def ko ni ma jiitalee nii kàggu mm-hmm. na ngi am lu ngay jiital sa biir ba pare soogu musóoru ba pare kol ko boo euh, tay voix bi ni indi voix classique la. d'accord kon tout suite retax yi comme je mène genre soir. Mhm. te da fay gëna génne li nga sol. Mhm. boo voix bi.

muuraay bi nekk dafa war am ci ko boo xam moom war parce que mënoon mhm. na tey da ngay muur du sol loo xam sa yaram bi dafay génn mhm. boo génnee sa dan lay xoolaat mhm. moo tax avec Idja Massour moom dañuy aider ci lu bëri de un moom moo ñuy fournir kool yi moom mooy joxe yére yi rafet yi et tout très très bien alors peut-être que ñu joxe nag tamit euh, vraiment adresse bi oui c'est important euh, fii la nekk mi ngi ah. nekk bopp euh, numéro de 77 567 83 21 567 83 21. Dima Fall Aïdara. très très bien alors euh, euh, Tata Mbayang xëy na nga am kàddu goo ci sànni parce que nag gis nga ne léegi muuraay yi bëri na waaye nag façon muuraay yu ne euh, dañu koy indi léegi surtout ci télé bi pour que kuy génn wala kuy toog sa kër wala kuy ànd ak say doom nga xam naka nga koy muuree mu fashion ko mu ñu koy waxee. man yaaxum mhm. man dama kontaan léegi. si mhm. xale yi. Mhm. ndax muuraay bi. dafa yiw dëgg la. da ngay gis marié yi sax. Mhm. Mhm. légui mhm. buñu ñu buñu bu moy dakk coiffure bi ñuy def. deug la dafa yiw. xam nga bu njëkk dañuy wax ibadu moy muuru mais muuraay ñëpp la war. deug la ñun ñëpp ñoo wara a kon nak li ngeen di def. gëreem na leen ci sant na leen ci. jërëjëf xalé yëpp di muuru. man sax dina ñëw muuru ci très bien <laughs> ah, ah, alors mama uh-huh. euh, xam nga ci les téléspectateurs dañ la namoon. waaw waaw xam nga lunettes yi. dal ñi ngi naan waaw est-ce que mom la wala du mom waaw est-ce que do ma bal rek nga simil ma lunettes yi. pour yow ah

Euh, yenn comportement yoo xam ne yii boo jëloon léegi kaasu kafe naan ko daal di koy fab sànni ci mbedd mi loolu rafetul te du jëmale réew kanam ay comportement itim ne ci kaw tali bi nu la neex doxale loolu itim doon na loo xam ne lii euh, ñi bari ñi koy jàmbat du doxal réew ndax itam ay nit bu ñu nekkee dañoo war di euh, bëggante fonkante xool li ñu bokk kenn ku ci nek la la ca war nga diko ca def loolu laa moom laa am ci gàttal ci luma la mëna wax ci ne ku bëgg réewam il faut que mu bayyi xel ci lolu euh je peux dire que ni ñuy comporté wo c'est pas bien parce que nit da nga waxa set au fait mais parce que ñun Sénégal lañu am mooy suñu réew et truc mais tu vois des gens nek ci marché bi di lek dara di ko fi sànni wala tamit. Euh, euh, surtout circulation bi nit yi respecté tuñu feuy des fois feuy bi day tak mais lu leen neex lañuy nekk di comporté dans la rue wala ñu nekk si koñ yi tamit di tour ndox yi si mbedd bi et autres vraiment c'est pas normal dañu nar a tamit euh, di installer tout le temps ay poubelles si si si marché bi lieu public yi wala ci koñ yeeg yëpp ut defax ay canal pour nit ñi di ci verser seen euh, ndox yu salte yi truc de ce genre daal parce que nous sommes tous des sénégalais waruñu ne voilà président bi rek moom mooy gérer réew mi moom moo war a gérer lépp nous sommes des citoyens amna yu bëri yo nga xamante ni ñun ñoo ko war régler suñu bop dal. fii Sénégal euh suñu mam bayu nañ fi ay valeurs yo xamante buñ ci sukkandikoo lepp lu jëm ci walu citoyenneté walu civisme ak walu éducation en général waruñu cee am problème Euh, le seul euh, problème en est que euh, on a une jeunesse à peu près perdue qui n'a plus de repères moom moo waral euh, yenn comportement yi nga koy gis parce que ah, bu ñuy wax nañu xool li nga xamante ni moom la ñuy gis ñu koy wax il faut dire la vérité. Au Sénégal, euh, niveau citoyenneté, ça ne va pas. Ça, ne colle pas avec l'image même du Sénégal. Après, c'est profond. Chacun a sa part de responsabilité. Donc, s'il faut trancher, il faudra que chacun puisse euh, être concerné.

di nuyu kilifa yi ma fi fekk yépp ak awandoo yi mi nga xam ni mm. moom moom invité di ñaan yàlla at mi nga xam ne mooy at bu bees bi mm-hmm. yàlla dafi xéewal dafi jàmm euh, yàlla suturaal sénégalais yépp suturaal africain yépp suturaal jullit yépp def jàmm ci àdduna amin amin yàlla nañ ko bokk ñoom ñëpp mm-hmm. alors madame awandooy Diop tey nag nga indil ñu sujet bu nga xamante ne bi yaakaar naa ne euh, waxtaanee ko xëy na du jeex mm-hmm. waaye nag xëy na dina am benn pàcc bu nga xamante ne bi dañ ci ñëw bu baax a baax parce que ñu ne citoyenneté pour un Sénégal émergent léegi laata ñu ci xuus nag dafa mel ni dañ ko war a faram-fàcce mhm. euh, pour que nag euh, ñi ñuy seetaan mhm. euh, am dégg-dégg bu baax a baax ci mhm. li nga xamante ne moom la ñu bëgg jëm dëgg la ya xam euh, je pense que sama invité bi dina compléter li may li may introduire. Mm-hmm. Euh, mais xam nga c'est trop simple. Mm-hmm. bu ñu waxee ni c'est trop facile. Mm-hmm. bu ñu waxee ni dëkk bi doxul. après ñu tourner. vers peut-être les dirigeants. du aspect politique nag. ba bëgguma ñu politiser affaire bi. parce que ñun ñëpp dëkk bi ñoo ko bokk. noonu ku nekk na jéem a xool pour dëkk bi mën a jëm kanam parce que c'est bien d'accuser l'autre mhm. mais quelle est ma part de responsabilité dans ça li may faral di wax rek mooy bu ñu naan bi dafa salte ku nekk bu xëyee bale buntu këram buntu kër yëpp set mhm. defe naa ni mbalit kenn dootu ko gisati te gis nañ ko à travers image bi ñu ñu wan euh, mhm. reportage bi ñu def et tout te tamit nee euh, la jeunesse à bon dos parce que toujours dañ naan génie génie génie mais fi ñu di def reportage ay magum jëmm yoo xamante suñuy moroomu maam la nu ñoom ñoo doon jël di sànni ci mbedd bi donc c'est un état d'esprit d'où question euh, d'instruction qui euh, c'est-à-dire que nañu xoolaat jikko yi défarat toogin ni buñu bëggé bëggee dëkk bi jëm kanam parce que bu Sénégal crevé ñun ñëpp ci ciy tout à fait que euh, nak docteur Djibi Diakhaté man bëggon naa ñu faram fàcce bu baax li nga xamné mom lañu indil tay moy citoyenneté pour un Sénégal émergent parce que dana baax tamit ñu xam loolu le la muy tekki waaw euh, jërëjëf euh, soxna si xam nga euh, tubaab moom bu dee wax citoyen mhm. daf koy wuutaleeg sujet sujet mooy koo xam ni amul baat ca dëkk ba mu ne dafa mel ni daal dafa am koo xam ni moo yor nguur gi di def lu ko neex am na waykat yi sax dañ doon wax mhm. euh, dëkk bi buur a fa da nga daan tëdd ba guddi jot buur tëgg ndëndam ñu jóg leen fii ku fi fanaan di jàmm wala nga mhm. bay sa tool ba mu ñor mhm. mu daal di koy jël daal ni moom naa loo ko loolu foo ko gis ñafa ne kenn du leen wax citoyen ay sujet lañ loolu weesu weesu nañ ko def naa ci àddina nañ ko <laughs> léegi bu ñu nee citoyen nag mooy koo xam ni kenn du ko sañu koo def loolu maanaam dañu jàpp ne bëgg-bëggam mhm. jëfëm da fay bokk ci ni affaire yi di new mhm. waaw légui ñu japp ni bu fekkee ni am réew dañ ko bëgg jëmele kanam mhm. faaw ku ci ne japp ni am nga sa wal am nga sa war bo ci war bay bu ñëk bu ñu daan añ Camara lay daf koy wax nee na bu ñëk euh, dafa am waxtu yi nga xamni dañuy am añ ak waxtu yi ñuy rër dañ daan wa ci midi dem añi trois heures ñu delluwaat fa ñuy liggéeyee. dix loo mënoon ci jàpp timis bu juggu see nga bàyyi ko. Mhm. daal di ñëw reer. bu ñu reeree ba pare maam daal di jël di léebal xale yi. Mhm. Camara laay nee na bi muy nekk gone añ baak reer baak ndékki ba. Mhm. dafa am lu ñu daan def ci moom ci jikkoom. bu ñu mësaan a taaj ndab li. mu ni sama ndey li mu doon njëkk lijjanti mooy na may toogee. toog bu jub toog bu yiw toog bu sell. ginnaaw ba ma toogee toog boobu ba pare. mu ni ma sa loxo càmmoñ. parce que ndab li warul yëngatu. ndab li mooy société bi. bi warul yëngatu bu fekkee ku ne téye symbolique boobu la. c'est-à-dire yow noonu nga ko xayma te nag mbokk yi ñuy seetaan defe naa ne xayma googu am na solo mm-hmm. parce que comme ni mu ko waxee euh, euh, bool la bu ku nekk bu téye. yëngatu du ca am c'était important ku ci nekk am nga ci responsabilité mm-hmm. mu ne man sama kanam rek laa war a lekk mm-hmm. sëgg ci sama kanam di xool li may lekk mm-hmm. toppatoo loolu waratu waruma yóotu kanamu jàmbur am na ko wax léegi ci reportage bi boo duggee ci circulation bi gis lu doy waar mais ki nga xam ne yar nañ ko ne ko ci sa kanam rek ngay lekk waroo lekk kanamu jàmbur sa loxo sax warul jaabante ca diggu ndab la da ngaa war a sëgg ci sa kanam di lekk kooku bu màggee di dawal mën nañu am yaakaar ni ca kanam waaw parce que nag du doublé fa mu warul doublé <laughs> ca ca côté rek lay dem <laughs> waaw léegi ndawal nga ca yëkkatiku ndab la ñu ni gone waru koo laal mhm. mag ñi ñoom ñoo ko war a laal waaye mag ñi am na ñu yërmande bu toll ni dinañu dagg tegal nag euh, euh, ndaw yi ci seen gone loolu moom mooy njiit yi mhm. Mhm. ñoom la ñu dénk la ca digg ndab la waaye ñoom dinañu jël comp ku ci nekk ñu tegal la sa place waroo lekk di wax waroo lekk di tuur ndab euh, ñam li ci suuf ndax yow yàlla baaxee na la nga jot ci ñam loolu am na ki nga xam ne jot ci kooku da ko war a bàyyi xel daal di euh, wormaal. Mhm. ñam bi nga xam ni moom ngay lekk. Mhm. kon mu mu ni bu bu ma bu ñu mësoon a pare ci man. Mhm. ci yar googu. bu ma génnee ci biti damay nekk nit ku taaru mm-hmm. bu ñuy wax taar nag waxuñu taaru biti taaru biir moo tax <laughs> yaa ngi naan soxna si léegi téléspectateurs yi dañ laa namm boo jëndee sa lunette yi ñu gën laa gis gën laa ràññet leen mm-hmm. boobu nga xam ni taaru biir lay nekk di feeñ ci xarakanamu doomu aadama bi moo tax Cheikh Amadou Bamba di wax ni mm-hmm. gis nga booy nuyu nit ki ubbi sa kanam ba mu yaatu nga boole ci ab reetaan noonu nga koy accueillir nee na loolu rek mën na nekk caabi buy ubbi buntu ak jàmm solo ak am solo waaw léegi nag nit kooku ci boppam bu fekkee waajaluñ ko nañ ko war a waajale mhm. ca ndab la ci lepp ci formation ci école ci mhm. formation ci dar ci mhm. formation ci atelier mhm. ci formation ci mbedd mi moy mag ñoñu nga wax ni dañoo wara nek ay modèle nga xamni ni li ñuy wax war nañ ko sét ndax xalé yaangi dégg lu ñuy def war nañ ko xol ndax xalé yaangi xol en conséquence ñom dañu wara nek ay modèle koku nak bu ni formé wuñ ko non pour nga jëmele ab gox kanam dafay am man nak euh, damay euh, am euh, wax bu nga xamantene bi dama ko japp ci la ngay wax docteur Djibi Diakhaté tonton Lamine moy wajal sànq defe ni ne émission bi di commencer ñu waajal dafa am solo te defe naa ne bu nu waajalee mhm. eh, nit yi xale yi defe naa ne bu ñu demee ba màgg comme ni mu ko waxee ndab loolu le defe naa ne danañ ko mën a tëggee bu baax a baax te loolu dafa am solo te muy tëggee yaa xam parce que meññeef boo gis buñ ko waajalul yaakaar naa ne lañ ci bëgg duñ ko mën a am mhm. garab sax ci boppam boo ko saxalee mhm. dan naan la boo bëggee mu màgg jub da ngay wut benn piquet yeew ko ca buur bu màggee jub Euh, man ak professeur Djibi Diakhaté beaucoup nañ ci benn projet boo xam ne nii euh, suñu agence moo qui est woon. Mhm. Euh, ma génn woon fa benn slogan bu am solo. Mhm. un développement un engagement patriotique pour un développement local. Mhm. je crois que développement bi ñu bëgg. muy civisme la reconnaissance de la citoyenneté Il y a dañ ko war a jaarale ci ndortel ba base bi. c'est important moo ñu amaloon solo. Mhm. ba tax sax waye suñ màggee rek lañ ci bëgg mo ci mëna a am. alors mhm. euh, ñu ngi lay gërëm dina la hein, parce que ma ngi koy wax né ñu ñu ñu ñu indi. ci saison trois bi dañu cee am yaakaar bu lool parce que nag defe naa ne nañu commencé mhm. baax na parce que mhm. télévision mhm. Euh, dafa nekk lu nga xamante ne bii dafay yaatu yaatu bu nga xam ne ku ne dañu ci dina ci dana ko seetaan ñu bëgg nag ku ko seetaan ci li nga xamante ne bii ay spécialistes ñoo fi toog ñu am la ñu ca jëlee parce que ni ñu ko waxee ñun danoo bëgg Sénégal àddina yëpp émergent waaye ci biir loolu dafa am yoon dëgg la dëgg la àdduna yep émergent xam nga lolou noonu mom dafa melni comme man damay wax nan slogan yi gouvernement yi di tek ci place et cetera et c'est juste pour valeur ajoutée man la koy tuddé mhm. mais base bi en réalité du du ñom mhm. parce que même buñuy ñuy jàngal xale yi citoyenneté civisme ci école li ci ëpp dañ leen nan faites vos droits d'abord avant de réclamer vos devoirs. Euh, c'est-à-dire que nous, ne mhm. que pas avons nous avons dit que d'accord part de responsabilité les gens qui part de responsabilité ça va être trop facile je dirais même parce que euh, quoi qu'on puisse dire c'est 14 millions d'habitants. Mhm. 14 millions d'habitants yi damay gagner 4 millions yi ma 10 millions seulement Si nekk bu defee li mu def 7 millions yi bu 7 millions yi baaxee rek mën nañu 7 millions man foofu la ko très bien mm-hmm. alors euh, euh, monsieur Diakhaté peut-être nous nous devons aussi parce qu'il y a ne année, nous nous a mën a nous di euh, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire actuellement au stade de la Sénégal euh, question bu am solo la xam nga aduna bi ci boppam. Mhm. moom moo dem ba am ay problème crise loolu du Sénégal kese ah. Mhm. li ñuy wax crise des idéologies mhm. dafa dem dab aduna bi yëpp. Euh, modèle libéral bi nga xam ne moom la américain yi yor. dañu dem ba mu am ay jafe-jafe. boo xool boo dee xool dans les années 2000 2007 dama amoon crise financière bu mag. boo xam ne ci banque américain yeeg euh, Angleterre la ñu jógee. modèle modèle socialiste bi communiste. boo ko dee xool depuis 1989 bi Gorbatchev ñëwee Union soviétique dafa commencé am problème. donc adduna bi ñoom ñoo am crise u mhm. waa mais bu boobaa nag yow bu fekkee ni danga nga a taxawaat dëgg dëgg dëgg dellu ci li nga moom du feneen. dellu ci li nga moom da dellu ci li nga moom. ko xamul fa nga mm-hmm. jëm. waaw d' accord da ngay dellu ci li moom dafa am ko tudd Joseph Kizerbo. Mm-hmm. dafa bind benn téere bu tudd laat naat des autres. Mm-hmm. nee na keneen boo ci fanaanoo ci basang. dëgg la de basangu wax ci ñun ku parce que kooku jamono ji mën naa ñëw yee la ni la jubal maam yow sa nelaw sax du neex ndax yow ci la nga tëdd moomoo ko. dëgg la waaw donc li nga xam ne moom mooy dëgg dëgg dëgg mooy li ñu li ñu am na ci yu jekk. Mm-hmm. Euh, daf ci am yenn yu ñu sax boo ko dee xool ñu ngi koy sàggane ba koy commencé. bu baax nga baal ma <laughs> euh, euh, docteur. yaa ngi wax maman Mbayang yaa ngi wax. Uh-huh. Mm-hmm. waaye li mu naan am na yu jekk. Mm-hmm. yu jekk yu yu jekk yi rek moo fa nekkoon. bu njëkk ba bu njëkkaat. ñun lu jekk rek la ñu xam. comme ni mu ko waxee nii. ñun dañ daan lël. dañ daan lël góor lël jigéen. lël jigéen. waaw góor ak jigéen. dañ leen daan lël pour la

kilifa. man mhm. ngaa dem di lekk lekk wa ñaaw. Mhm. boo doxu ne ñu la eh jigéen ndànk lay dox. Mhm. jigéen du waaxu. jigéen du fëtër fëtër ndànk wax. waaw ndànk lay wax <laughs> loolu bu jëkk dañ ko daan def. ñu yàlla nag xool nga li docteur wax léegi bi ñuy géejee bokk bool. bokk famille. xale yi toog. góor ñi toog jigéen ñi toog. ñu bokk menn raxasu. la dëkk bi yàqu. la jikko yu soppeeku. ndax lépp si biir kër yi lañ ko daan defee. te loolu boo ko daan gis sa bàjjan am na si yow paar. Mhm. sa papa am na si yow paar. Mhm. boo génnee si biti am na ñoo xam ne bu njëkk bu ñu daan jàng. Mhm. soo gisee sa maître daw. koñ ba yëpp doo fa taxaw. mais léegi maître sax mënul lu toll élève am dara. ñi bu ko dóor ñi bu koo def dara. loolu moo tax. jikko yëpp yàqu. léegi docteur euh, euh, stade bi nga xamante ne dañu fi toll parce que modernisme bi dugg na torop torop torop alors ñi ngi wax ñi ngi delluwaat loolu d'après yow mi nga xam ne sociologue nga naka la ko mën a ak fan la jaar. Je ne sais pas si vous a question ah. parce que faut définir la citoyenneté mhm. dama bëgg une émergence mhm. parce que nous avons une émergence mhm. émergence émergence mais ñu avons une émergence bi man une émergence comprendre avant avancer si question kon question <laughs> mais mais émergence boo ko dee la uh-huh moy ko xamni ndoxam mi ngi dugg ci biir ndox bi te mën na faa dee mm. bu fekkee mënul fay mm-hmm. daal di dugg ci biir nuur fa mm. daal di fay des lab loolu mooy immergence d'accord contraire bi mooy émergence moy ko xamni dafa nekkon ci biir genn daal di feul yeek ci kaw lolu moy émergence kon émergence daal mën nañu wax ni moy soqaliku moy mm-hmm. ko xamni dafa nekkon ci ay jafé jafé mm-hmm. xol ay pexé nu mu défé ba jafé jafé yoy jóge fi ba nit ñi suqaliku nit ñi nekk ci jam mm-hmm. lolu moom moy émergence très très bien maintenant nak bu ñëk dañ doon wax développement waye ni ñuy jàppee woon développement dañu dem ba ni nekke ni du nona parce que dañ naan bu ñu ñëwee ci ab pénc comme pench mu melni nii ñu ni bu ñu fexee ba ku nekk am junni ci posam semaine bu jot kon mën nañu japp ni développement amna waaye bu fekkee ne Lamine moom dafa yore juróomi junni mhm. yow awa yorul junni yow yaa xam yorul junni soxna ma jigéen waaw mm-hmm. ah. yorul junni man yoruma junni moom rek a yor juróomi junni mm-hmm. dañ naan ni juróomi junni yooyu dañ ñu koy séddale ñun mm-hmm. donte moom rek moom moo ko yor xam nga loolu du développement parce que dafa indi ay moo indi ay indice de développement humain moo indi émergence bi ngay dégg maanaam suqaliku boo xam ni ku ne da koy yëg nit ku ne fa nga ne nga yëg waaye mu bañ a nekk ay mbiru ñenn rek. Mm-hmm. waaw loolu nag euh, pour mu mën a sotti encore une fois. mën nga defari tali mhm. mën nga defari étage mhm. mën nga defari usine mhm. waaye bu fekkee ni nit ñi ci seen bopp waajaloo leen am nga problème très bien defe naa ne kon jiitu moom mooy waajal nit yi defe naa ne loolu leer na waaye nag suñu deuxième question bi tamit euh, docteur yaakaar naa ne foog ñu ñëw ci parce que maa ngi koy wax sànq euh, modernisme bi nga xamante ne bi avancé nañ ci lool te yow nga gis la solution mooy ñu delluwaat ban yan bunt la ñu mën a jaaree pour loolu mën a am parmi ces bunt mu ngi ñi mooy ñi nga xam ne ay artistes lañu alors euh, culture dafa am solo cim réew gis nga euh, am réew bu amul culture Senghor da ko doon wax bu yàgg day mel ni amatul dara culture nag moom mooy li nga moomal sa bopp muy sa mm-hmm. aada sa cosaan di sa xar kanam di say baax loo xam ni moo lay wuutalee ña ca des gis nga tubaab yi ñoom ci seen wàll bopp mm-hmm. dañu mm-hmm. la malayee def ko yées la ñuy def ñun tubaab yi nous autres civilisations Paul Valéry moo ko wax nous savons maintenant que maanaam ñun tubaab yi amatuñu civilisation amatuñu fu ñu jub waaw léegi ñun nag ñun ñoo am lu bari parmi li ñu am mi ngi ay kal diggante Ndiaye maa ngi koy dégg diggante Thiam ak Sarr <laughs> diggante Thiam ak Sarr ah, ah. Euh, cër bi nga xam ne gone moom la war a jox mag mag kàddu ni mu amee solo ci suñum réew mm-hmm. toppatoo ab pénc gis nga boo gisee li xew léegi di sànni ay mbalit ak yu deme noonu xamuñu ko woon bu njëkk de mm-hmm. aka ñoo respecté woon pénc bi dañoo jàppoon ni ab garab sax boo ko daggee mm-hmm. te tegoo ko ci yoon di nga am problème yow sa njaboot ah. ab ab ab mala boo ko reyee te tegoo ko ci yoon parce que dafa am foo ko war a teg mhm. di nga am ndox mu tàng boo ko tuuree ci suuf mhm. di ci am mhm. problème alors gis nga yooyu te dañ ko war a waat développer jëmale ko ci loola bi ci topp moom mooy programme politique parce que euh, gis nga parti politique bu ci ne war nga nag am projet de société daal man man réew mi nii laa ko bëggee ñu tëggee ko mhm. nga xam ne dafay dellu ci lu ñu moomoon démb ci lu baax mhm. waaye nag ba ñu tëju mhm. bu ñu nee dellu ci dellu ci li ñu moom mais da ngay tijjeeku tamit mooy li ñu dellu si waat ci Senghor rek <laughs> le baobab absolument tout à fait tey kenn mënul wax ne damay jàpp rek tëju sa bopp boo jëlee boo demee tey jii ci pays asiatique dama lay jox exemple rek nga dem Singapour nga dem Chine nga dem Corée et cetera nga dem Japon da nga leen di gis ni ci mbirum xarala yi. Mhm. mbirum technique dañ cee avancé. Corée dañuy defar oto dañuy defar ay télévision mhm. yi mais boo leen fekkee ci ni ñu avancé ci technique boobu noonu mhm. la ñu respecté seen culture. waaw te boo leen waxee dañuy ni ñun li li ñu may lii. mooy dañoo delluwaat ci suñu. suñu culture donc culture dafa nekk lu am solo bi ci des buntu yi ci des moom mooy éducation système éducatif mais mooy média yi aussi donc dafa bëri ay bunt yi nga xam ne dañ fa war jaar bi ci fi may mujjee nag moom mooy ay modèle maanaam royuwaay gis nga am réew foog mu am ay royuwaay. Lamine mi royuwaay la. dëgg mm-hmm. mais balaa ñuy balaa ñuy nangu ni royuwaay la ak war nañ koo jox li mu jox faw mu jóge fi. Mm-hmm. loolu nag moom mooy perte. Mm-hmm. maanaam ki nga xam ne mi muy dund ak ñun. jamono ba muy dund ak ñun. nga baal ma de li ngay waxtaan neex ñu trop. ban jóge nga wax. ban jóge nga wax foog moo jóge fi jóge ban. waaw <laughs> ya non non yàlla mi jóge fi. mais li ma a wax mooy. <laughs> yàlla na yéex bokk yàlla li ma bëgg a wax. comprendre nañ mooy vraiment des modèles vivants. ñoo xam ne. Mm-hmm. Euh, pour ndaw yi pour mag ñi pour góor ñi pour jigéen ñi. Mm-hmm. dañu nekk ay. roy waay léegi nag dafa wax sànq développement local boo demee ci gox goxaat yi. Mm-hmm. di fa fekk ñoo xam ne. am nañu cër bu ñu leen jox ndax njariñ ba ñu am ca jox jox <laughs> njariñ nag waxuma ni njariñ ci xaalis te tey jii la société bi yàqu ba ñu jàppandi ni ku am njariñ rek mooy ku am xaalis waaw waaye société bu ba muy nekk société mhm. ko am mhm. euh, lay sant di la mhm. gërëm bu baax a baax di fàttali nag téléspectateurs yi euh, comme na mu ko waxee royuwaay yooyu RTS2 na ci ci saison bi indi tamit ay royuwaay muy benn chronique bu tudd référence incha danañ ci ñëw pour am ñoo xam ne dañ koy wone docteur ma lay fàttali nag nekk ñun ci tam-tam lañu ñu nekk donc ñu ngi ci am pench moo tax ñu fi jéem a waxtaanee lu ne pour daal am problème yu bëri yu nga xamante ne danañ ko régler mais mhm. euh, madame Awa Diop euh, dafa mel ni nag mhm. euh, ñu ngi may wax de l'autre côté mhm. waxtaan bi neex na waaye foog ñu arrêté ko <laughs> pour mun a xuus ci leneen <laughs> waaye nag dañuy dellu si waat parce que docteur Gniby Diakhaté incha allah dina fi dellu si waat amul benn <laughs> problème de toutes les façons mooy li ma wax rek xëy na moom de dernière question bi moo ko mën a posé moom mooy naka la parce que xam nga mag ñay yar mais ban attitude la mag ñi war a mën a yore pour yar xale yi parce que mhm. xale pour mu yaru mag day nekk ci wetam mhm. waaw euh, mag ci niñ ko waxee ci wolof mhm. nekkul koo xam ni dafa am ay at yu bari rek mais dafa am jikko bu rafet bu muy def ci ndaw yi dafa am benn waay dafa dëkk bi mu nekkoon dafa amoon problème nit ñi amatuñu lu ñu lekk mu jël mbaamam daal di ci teg saako dugub bi mu dese woon jël soxnaam teg ko ci kaw saako dugub bi. Mhm. di womat mbaam bi mhm. saako dugub bi nekk ci kaw mbaam bi ak soxnaam. Mhm. mu dem ba ci diggu àll ba dajeeg benn waay waay ji ni ko yow mii de. danga ngaa mel ni fa nga jóge dara amu fa. léegi da nga may jaay sa mbaam ak li mu sëf ñu waxaale ba d'accord. ke fay ko waji de ko jox ko mbam bi ak saako dugub bi muniko dedet mam ak lu ki la wax manam soxna ci la bok ah wax deug yalla sama cadeau dam na ma de purwana xam nga pour war ni kàddu dafa am solo ne ko jëlal mhm. waji jël koy continuer di dox mom kese mhm. ba yegg ci ben dëkk dan ni damay laaj mak bi nga xamni mo gëna sel gëna yiw gëna am xel ci dëkk bi mhm. ñu tektal ko ci ben kër mu dem ci kër ga fekk fa xalé bu ndaw ne ko ana sa mam mu ne ko sama maam dafa tukki mu ne ko dama koo soxla woon mu ne ko ah dafa tukki te ñëwagul léegi lan mooy sa mbir lan mooy sa problème mu ne ko yow gune nga sama problème bii mënoo ko lu jënd mu ne ko wax ma rek mu ne ko waaw problème bi daal lii la gone gi ne ko xam lan mooy solution loolu ki ko mën a def fii ci dëkk bi mooy buuse ba boo demee da nga ko fekk mu rey nag di ko jaay waxaaleel bopp bi bul ko wax jaay ma sa bopp nag bi ne ko jaay ma sa bopp day foog ni bopp nag bi ngay wax waa ji dem ca buuse ba ni ko ah, yow de yaa ngi soog a rey nag bi jaay ma sa bopp

yow mi nga xamni ne ko ndaw nga mhm. mu ne ko damay and ak sama maam waaw kon nak defe naa ne foofu la ñuy <laughs> foofu la ñuy jeexalee li nga xamante ne euh, moy euh euh, euh éducation et civisme bu ñu lon tay euh, parce que nak wax wax wax na dëgg bu baax a baax yaakaar naa ne même soo koy gis ni ay xalé yo xam dañuy faral di waxtaan ak ay mag mhm. dafa melna na seen xel da fay gëna match gëna yewu mhm. et cetera donc ñuy gëreum di sante bu baax a baax madame Awa Diop contane nañ ci nag ñu indil tay te di encore une fois défarat bol bi di tey bool bi ndax ndaxte mm-hmm. bool bi ñun ñëpp ñoo ko bokk su mm-hmm. yëngatoo du baax ci ñun mm-hmm. euh, docteur Djibi Diakhaté ñu ngi lay remercier bu baax a baax xam naa ne incha allah di nga dellu si waat euh, ci émission bi waaye daal lañu la ñu mën a jàpp en ci la nga wax mooy daal nañuy faral di waxtaan ak ay mag pour que xel mi sell c'est important merci beaucoup docteur jërëjëf merci beaucoup mbokk yi nu xuus nag ci euh, émission bi euh, ñëw ak yéen ci li nga xamantene bi moy invité du jour euh, sank ba légui yeen a ngi koy gis ci sunu plateau muy Tata Mbayang Gaye di actrice comédienne bu mag mbokk ñu dem xol lan lañ ci tonton Lamine indil dellu si waat mën cee waxtaan ci plateau Tam Tam ah. waaye lu ko fi jar àndal lii lu ko fi jar ana sowum ganaar bi ñuy ngalaa hmm? lii nag du kenn ku dul bookar dong ah waaye nag comme dëkkum nu laan la ñu nekk ku man wane sa morom nii jën warkat yi rekk ñoo fi nekk tëllëmboo mbubu moo xam ne kenn mën leen a xàmmee waaye nag yàlla mii nga xam ne moo ñu tiim di borom bët bi dara réeru ko sama yaay nag dina wax ne képp ku wor ren ba sa déwén te gisal luñ la dara dañ la koy jiiñ waaye du yow yàlla mi àtte nag yàlla na àtte yàlla na àtte macha allah dafa mel na mag mi nga xamante ne bi ma ngay wax ak xale ba muy déglu docteur laa may jox nag euh, tonton Lamine <laughs> ñu ñëwaat ci rek ci wax ji parce que moo ngi koy wax yi nga xamante ne bi ah euh, euh, mag ñi daan nañ ko wax yaa ngi gis xale bi mu ngay déglu defe naa ne loolu daal modèle bi war nañ ko mën a saxal. mooy culture bi. mooy mooy culture théâtre culture la. art culture la. naka lañ ci mën a jaaree. pour jàngale pour defar. absolument loolu moom mooy rôle am. li nga xam ne moom moo ko tax a jóg moom mooy rôle am nag dama la bëgg a xamal nag amul benn société bu amul yàqu-yàqu. dëgg la mhm. société boo gis doomu aadama nekk fa doomu adama la ñu moom moom la ñu xaw a mhm. moom mooy am ay ci boppam. Mhm. noonu lañ ko mooñaalee. waaw léegi bu ko defee rëq-rëq yooyu nga xam ne dafa nekk ci doomu aadama te mu koy indi ci pénc mi faw mu am yu ñoo xam ne moom la ñuy teg pour muy dindi loolu ñii nag. rôle boobu la ñu joué ay buntu lañ ñii dañoo joué gis nga euh, tabaxkat dëgg dëgg dëgg dëgg

Moi, école boo xam bouger bu wér la dañu wax école tubaab yi école tubaab yi mais euh, professeur mi quoi, koy wax docteur plutôt mm-hmm. ne nit ki warul fàtte bopam am fatte, culture Jang, ci bopam té lay gëna xam bo démé ci japonais japonais la lak ci biir ci biir sen école yi mm-hmm. et ci liñu gëna mëna comprendre liñuy jang. absolument té dafa am solo mm-hmm. motax euh, langue lu am solo té te théâtre daf koy génne

nee naa sànq bi ma duggee fii. sama yaram dafa daw. ndax dama fàttaliku lu bari mhm. ndax ginnaaw yàlla yonante ba sama lépp fii la. dëgg la man fa ba jaar ba ba amee sept ans la mhm. Mhm. waaye maa ngi jóg commencé maison des jeunes. maison des jeunes. waaw boobu fan maa ngi Lamine Ndiaye. fan la nekk boobu maison des jeunes mooy fii fii kii nekk Thierno Seydou Nourou Tall. ak Karawan Seraay. foofu la ñu nekk xale man Lamine Ndiaye Mamadou Diak. ñëpp jàkk waaw c'est vrai foofu la ñu nekkoon. après nag bi nga xamee ne nag yor for formé nañu olympique. Mm-hmm. ñu dem théâtre de palais. Mm. Awani Room. ah man xaw ma foofu. booba théâtre de palais Awani <laughs> Room la nekk. Uh-huh. booba Sorano amul dara amul. Mm. maa ngi ñoom Doudou Ndiaye ñoom Issa Niang. ñoom Oumy Sène ñoom Mame Less Thioune. ñun ñëpp foofu la ñu nekkoon. Mm. booba amagul. Mm-hmm. ñu delluwaat fa bi nga xamee ne. Euh, si sama damel ñëw na mu jamono jamonoy kura. ma nekk si nii. maag Lamine Ndiaye jamonoy kura jamonoy kura. c'est bien avant rajo. waaw da daan jàll rajo. studio A studio A jamonoy kura. ñi def jamonoy kura. après bi ñu defee ne jamono kura bi ñuy ñëw fii Ibrahima Mbeng mhm. bàyyi Aminta Mbenga. waaw waaw moo ñu fi indi woon. ñu commencé groupe yeewu jeex. ñu ne nañ def groupe waane. gurubane jeex ñu ne nañu def jëf jël moom benn journaliste Ousmane Ba Ousmane Ba journaliste dëkk Casamance mhm. fii la nekkoon mu ne Alaaji Abdou Seck waaye yow yow def euh, ay jëf jël ak lu kenn xamul du ngeen def réalité boo xam ne dafa méngoog jamono mhm. noonu ba yàgg Alaaji Seck na ko wax nga dëgg Ousmane Ba na ko jamonoy tey ah, moo indi moo indi tur jamonoy tey ñu ne comme noonu nañ ko inauguré fii de ñu daal di inauguré jënd ñaari keesu boisson fii si studio bi. déedéet kay. daal di naan dafa doon lépp. noonu bi ñu defee noonu. Uh-huh. après booba télévision amul. Mm-hmm. télévision indicatif moo amoon. d'accord indicatif ñetti télévision la woon. Mm-hmm. si Sénégal. Mm-hmm. pays mi. benn bi nekk Batrin benn bi nekk euh, central de bopp. d'accord docteur Canandoy. bi ngay dégg mom la fi doon liggéeyal ak docteur Moussa Diop bi ñu tuddee hôpitalu Fann. d'accord ak madame Ngom. Mhm. man maa la diggéen ñoo jëk a génn télévision Sénégal muy télévision indicatif yaayu salaam. la dëggeen samba la dëggeen euh, samba. ak yaayu salaam ak maire Diagne ba bobu boobu suñu cameraman yi fi pap Sow la woon. pap saw Pape Sow benn. ñu fi Pape Pape Thiam waaw. Pape Thiam moromu Pape Sow la. ñoo fi nekkoon woon fii. yu mag yi yu mag yi Pape Sow Pape Thiam. <laughs> docteur ñi ñu ngi wax lu yàgg ah. Pape Sow caméra Thompson Pape Sow ah, Pape Thiam en noir et blanc. noir ak euh, ak kii euh, Koutia kii la Touré. Goutia Goutia. waaw suñu décorateur moo nekkoon. Euh, waa ji Mbaye waaw ah. moo fi nekkoon Mbaye Camara. Ah. bu ñuy suyee tey. après booba directeur bi mooy Jibril Ba kii kii nu mu terati euh, kii euh, kii Ba waay te nekkoon ministre des finances kii. yéen a ngi wax moom moo fi nekkoon. Uh-huh. ginnaaw moom. Euh, kii Lamine Ba Lamine Ba bi ñu yóbbu woon extérieur. waaw te mu yoroon affaire football yeeg yooyu. Uh-huh. ak Fara Ndiaye Fara Ndiaye avocat. Fara Ndiaye waaw bi nekkoon bu Ablaye Wade. Mm-hmm. ñoom ñoo fi nekkoon fii. réalisateur yi fi nekkoon do Ba aaw do Ba do Ba waaw ah bon fii la nekkoon do Ba aaw Ousmane kii Fati sen ak ak uh, sar Lunette moo jur Samuel sar ah, ak ak ak kii waaw léegi ci biir loolu ngeen commencé théâtre Euh, radio théâtre ah. rajo naka la doon demee parce que c'était extraordinaire hein. et mm-hmm. on a toujours mais on mm-hmm. avait aussi de très bons techniciens parce que bruitage bi ak yëpp en fait da nga koy daan on dirait que yaa ngi toog di seetaan xoolal euh, bi si gàttal bi ñuy def mu xuro jege mm-hmm. chauffeur de taxi waaw euh, kii qui kii Mbengue moo ko Ibrahima Mbengue moo ko bindoon mais lépp bruitage la woon légui mu xuro ja taxi bi booba booba na booba kii nu mu tuddati eh, Marguerite Thiam. Tata Marguerite Tata Marguerite. ñoo ngi koy nuyu. moo nekkoon maa ngi koy nuyu. ñoo nekkoon eh, kii bi nga xam ne employé bi nga xam ne dafa doon liggéeyu building. Mm-hmm. kii di ko jël ma xuree ji di ko jël si taxi bi. ak euh, Nicole. Mhm. Nicole Sar. Nicole Sar. Nicole Rigo ñoo fi nekkoon mais bu bu toogee brutage fii ko daan jëlee si kaw. su dafa taxi bi na client Marguerite ñu daal di porte bi. naka da studio bi studio studio A studio c'était préparé. des émissions comme ça. comme ça donc euh, nga dégg. ay mhm. disque la jël. wala ñu ci enregistré ko indi ko. mais def montage bi. soo bëggee boo fekkee ne comme ma xuree génn na noonu lay deme Alaaji Mor bu fekkee dafa yor feetal gi bul ma xool ku jege fii ku ma jege sama coffre-fort bi tuy tuy ba tey bruitage la. boo fekkee ne moo dafa dem si àll bi ñu génn bruitage bu ngelaw. xam nga xale yi dañ daan toog ba génn koo ne raasi xoo naa ngoog mu daw tëddi. waaw te rajo rek la ko daan déggee. mais boobu. naka bokkoo ne lan la voix raasixuuna raasixuuna bu ne xaaxaaxaa ñëpp daw. Eh, eh, tey laa lay prince tey laa lay def nii ñëpp daw xale yëpp dañuy tëgg xale boo ne raasixuuna nga dootul taxaw si mbedd. déedéet te boobu si rajo rek la koy déggee te boobu bu bruitage yëpp ngi fii. boo dee yéeg di ubbi néeg escalier yi kak kak kak kak yëpp bruitage la mhm. noonu euh, lañ daan waaw euh, laata may joxaat nag parce que ñu ngi naan man waxtaan bi neex na waaye foog ñu xoos ci émission bi mais jeexagul en tout cas il reste mhm. quelques minutes euh, ah, madame Awa Ndoye Diop mu mel ni daal vraiment di delloo siwaat ñi nga xamante ne bi seen liggéey ci wàllu culture comme na ko docteur waxee am na solo te gis nga mi ngi koy wax nee na même kooku je naka la tudd raaji xun raaji xun voilà kooku tamit bu na xale yëpp dañ ko daan donc je veux dire mu nekk ay mbir yu nga xamantene bi ça contribue vraiment à l'éducation de la population te doguma la xol nga Ibrahima Mbengue moo nekkee mbànd bi ndiyan ndayaan moy mhm. Aminta Mbenga bi écrivain waaw moy doomam Aminata Benga soxna Benga soxna Benga soxna Benga di papaam euh. mo nekkoon band bi ndayan D'accord. Ouais. Euh, maa ngi mel sax comme man maa joué <laughs> fii théâtre bi parce que je suis en plein dedans. Oui. mais c'est juste pour dire que xale dafa ragaloon. Ah, waaw xale dafa ragaloon mm-hmm. waaye léegi avec l' technologique on culpabilise pas hein, mm-hmm. culpabiliser wuñu ko mm-hmm. euh, avancée technologique bi yegg na foo xamante ni xale yi sax dañuy toog di seetaan léegi ay catch yoo xamante ni yow doo ko seetaan ñeme ko seetaan wala ay filmu horreur et cetera loolu yëpp si éducation bi la te ba pare léegi xale yi dañ leen bàyyi ci biir mag ñi

léegi euh, Mbayang li tax ñu yow indi ko ci loolu li mu doon waxtaan yëpp. Mm. xëy na door door bi la mm. ak kii beeg yooyu. Mm. mais boo gisee kàddu yi mu génne. Mm-hmm. ci film bi nga xam ne ni jot na fi jaar. Mm-hmm. nga war a xam ne nii ñun suñu kàddu war nañ ko sàmm. te mm-hmm. euh, docteur wax na ko léegi. nit ñi sàmmee kàddu.

artiste amul benn artiste bu am retraite Sénégal rek laa dégg ñi wax artiste dafay retraité mhm. mais Europe mhm. ndax film mhm. loo màgget màgget màgget am nga si rôle léegi fu mu nekk nii yow ci lan nga nekk est-ce que yaa ngi continuer di jouer ci lan nga nekk maa ngi continuer di jouer ah ndax gis nga kii bii nii Ndëri Baaba moom laa mujjee moom laa mujjee tourné te am na ay ay projet yoo nga xamante ne am na ay projets yoo xam ne man ci am prix Piri waaw waa RTS ñoo ma ko joxoon keroog. muy kii fête de mer. waaw muy Jolof Régal. d'accord ñoo ma jox salon un million. très très bien keroog biñ ma invité. kon daal bravo RTS tamit. waaw fii nga commencé ñu dem ba di la jox raaya. Ah, ci fi nga toll nii vraiment sant yàlla bu baax a baax. Euh, kon nag ñu gis nag ne que vraiment euh, euh, daal macha allah. Mm. parce que comme ni nga ko waxee xam nañ ko waaye léeg-léeg nga gis ay artistes yu nga xamante ne bii.

ndaxte Mbaye bokk wa bokk na ci ñuy ràññee ci mbiru théâtre mm-hmm. li professeur doon wax sànq bok na ci jigen yi nga xamni ni war nañ ko jox yeneen ni raaya yo xamni ni mhm. parce que dafa yag liggéeyal Sénégal ci éducation mhm. Sénégal dafa am ñaari problème mhm. éducation et communication man fa lay tënku très bien ah, euh. waaw kon nak loolu nañ ci jéem gor góorgóorlu euh, ñi ngi ñi ngi contane bu baax baax vraiment di gërëm le docteur Djibi Diakhaté ñi ngi lay gërëm di la sante bu baax baax ma ngi koy wax sang xamna di nga teewaat ci émission bi parce que nak 52 minutes defalane doyul pour ñu mëna waxtane lepp ñi ngi lay sante di la gërëm bu baax baax jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen souhaiter bon vent. merci beaucoup merci gentil merci beaucoup Tata Mbaye xam naa ne nag yow dinañ la war a mën a invité waat ci yeneen. pour gën a yaatal waxtaan bi. Mhm. mais daal liñ ñu ci jàpp mooy téléspectateurs yi ah namoon nañu la. Mhm. Euh, tam tam wane na la euh, di fàttali nag ne que vraiment yaa ngi toujours di ci sa activité. Mhm. di jouer toujours ay théâtre wala ay film. ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal jàmm ak salaam di ko ñaanal sa njaboot. Ah, yaa xam man tamit content naa trop. maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal si tam tam tam mhm. di ñaanal tamit yi ma bokkal plateau bi mhm. ñun ñëpp yal ñu yàlla may jàmm si at bu bees mi di gërëm tamit Lamine Ndiaye ndax Lamine Ndiaye sama càmmiñ la sama cheikh la di leen gërëm yéen ñëpp ba pare nag mhm. di sant sama borom kër ah. kontaan naa si moom waaw waaw ça aussi ça fait plaisir <laughs> loolu tamit bokk na ci valeur yi nga xam ne dañ ko am <laughs> fonk sa borom kër en tout cas ñu ngi lay remercier <laughs> madame Awa Ndoye Diop euh, c'est vraiment voilà un plaisir pour ñun nga nekk ci suñu plateau merci beaucoup maa ngi leen di remercier yéen ñëpp maa ngi remercier aussi les membres de mon cabinet. Ah, très bien. Et je le dis euh, parce que suma fi toogee tamit cabinet bi l'a représenté cabinet Active Consul. Très bien. D'ailleurs même reportage bi équipe bi ñoom ñoo ko def. C'était okay. pas moi donc je ngi leen di remercier lu bëri. Mhm. souhaiter tamit euh, une bonne et heureuse année à tous nos clients. Uh-huh. qui nous ont fait confiance. Très, très merci beaucoup Nous ngi lay gërëm di la sant waaye di gërëm di sant bu baax baax tonton mm. Lamine Ndiaye te nag na ngeen ko xaar vendredi bu jot ah, ñi mu leen di indil dafa mel ni leen di mm-hmm. merci tonton merci beaucoup merci beaucoup. Ah, ah. merci euh, maa gërëm di sant ñëpp waye tamit di remercier Mariama Magasuba parce que gis ngeen ne sa su ne moom moy jaar ci sañse bi numéro téléphone am 77 634 44 11 ma nga nekk fële ca Padoa Builders villa numéro H56 di len jox nak euh, rendez-vous inshallah. Euh, Bonne émission Tam Tam RTS 2 Canal 5 TNT bonne suite des programmes sur cette très belle chaîne au revoir